mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek ba léegi ñoo ngi fii ci li wër euh, jumaa ji dégg ngeen tur yàlla yu noonu Baye Fall yi waaye xam ngeen ne bis bi ak bis yu demee nii am na murit yoo xamante nii dañuy dajale seen fukk seen ñaar fukk di ko jënd ay xéwal di ko jox euh, mbokki taalibe yi lu ci mel ne ndox wala kafe wala sax di togg ay añ li wër jumaa ji yëpp ay daayira la yoo xam ne ay mbooloo la yoo xamante nii dañuy ànd ak mbokk taalibe yi euh, ci euh, liggéey bi nga xamante ni moom la leen sëriñ bi di liggéeyloo ñu taxaw ak nag mbooloo ànd liggéeyal sëriñ saaliw ñu taxaw siñ sëñ Sidi mi nga xam ne mooy jëwriñ ji sëñ Sidi ñu ngi lay siyaar baax ak mbooleem ñi nga àndal liggéey bi mel na ne seen liggéey yaatu na léegi euh, fii ci réew mi ba ci bitim réew sax léegi képp koo xamante nii rek. Euh, mi ngi bàyyi xel liggéey bi rek xam na ne am na ak yokkute nan ngeen taxawee ci bis yu mel nii euh, euh, duggulet bis yu mel nii da ngeen ci taxawu am solo di jox nit ñi ay xéwal mel na ne naaj wi xaw naa wàcc heure bi ndox day am solo waaye café day am solo waaye ay añ tamit day am solo ñu ngi la ciy siyaar bu baax a baax nag di la jox kàddu gi nga leeral ñu liggéey bi rek nan ngeen ko taxawee. incha allah jërëjëf Yaram maa ngi lay ziar bu baax di la ndokkale ci bis bi nga xam ne bisu ndigal la waaye bisu yokkute la. waaye bisu bis la boo xam ne eh, ku nekk murit bu nekk boo ko yëgee foo nekk war ngaa daw wuy si ndax eh, yaakaar naa balu ñu ko mën a jàppaat faaw téeméeri at yi mataat kon loolu bu ñu ko xasee ba am sëriñ bi dimbalee ñu ko jàpp nañ ne bépp murit bu mën a doon moo xam kuréel wala nga toog sax boo yëgee ne sëriñ Mountakha joxe na ndigal lii war ngaa daw eh, ñëw teewe si li nga xam ne mooy bis bii nga xam ne ginnaaw bi sëriñ bi làqoo ak léegi mi ngi mat téeméeri ñi di ko euh, ñi di ko si ñaanal waaye di ko fàttalikum di sant bu baax nag euh, ci laaj yu am solo yi nga xam ne laaj nga ko jëm ci mbooloo ànd liggéey Serigne Saliou muy mbooloo moo xam ne euh, seen yéene ak seen bëgg lépp génnut liggéeyal Cheikh Saliou Mbacké ay mboolo ay ay ay ndongo tërbiyee Serigne Saliou taxaw ko waaye yaatal ko ba mu daj fépp ci àdduna bi biir réew ak bitim réew tax mbokki taalibe yi di ci doxee ak bëgg waaye di ci doxe yëg-yëg ndax li ko waral mooy liggéey bi taxawaay bu am solo biñ ci taxawee jëm ci ndongo yi ak daara yi Serigne Saliou Mbacke yi te buñ ne mbooloo ànd liggéeyal Serigne Saliou Mbacke dëgg la ëttub kër Serigne Saliou la ñuy liggéeyal waaye xeeti liggéey yii nii fépp foo xam ne si xalif général woote na ci danañ def sunu kem kattan ngir dem wane fa li nga xam ne moom la mbooloo ànd liggéey Serigne Saliou di liggéey tax ñu tey ñu ñëwoon indi ay xéewal def ko addiyey Serigne Touba ci bis bii ñaan nag fekkeeti euh, téeméeri at yi nga xam ne dañ ko war a màggalaat mu jëm ci fàttaliku sunu jàmbaar ja ki tax tey ñu mën a jariñu ci lu mel nii ni ngi sant bu baax a baax nag euh, yéen it seen teewaay ci ci ci euh, ci ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne mbooloo am liggéey Sëriñ Saliou taxawee na ko fii ci Diourbel ñëw taxaw joxe ay ay xéewal joxe lépp loo xamante ni murit bi da ko yittewoo ci bu ñuy tudd euh, bu ñuy tudd yàlla muy bu ñuy bu ñuy euh, joxe baatu laa ilaha illallah sëriñ Muntaxa wootee ko noonu tawféex la ci ñun daal mbooloo ànd liggéey Sëriñ Saaliw na ñu ngi ci woo ñëpp wuñ kenn xam ne li li waral sunu euh, sunub liggéey mi ngi jëm ci liggéeyal ku baax ki seex Saliou Mbacké aju ci xel xelkom ji ak fóot mi nga xam ne dañ koy faral di defal ndongo yi tey defuñ ko at mu nekk waaye la cinq bu nekk danañ dajale suñuy addiya dem fekk ndonge tërbiyee Sëriñ Saaliw yi fóotal leen seen yére ba mu set ñu euh, berndeel leen ngoon jot ñu yeewi ko euh, xel kom ji tamit dañ fay dem euh, bu ndigal li jibee danañ fay dem taxawu ko lépp loo xam ne ndigal lañ fa amee ñu taxawee ko ba ndigal la jeex ñu ñu wëlbatikum gàmm gi tamit dañ koy taxawee li tax Serigne Saliou dafa waxoon ne sama bépp kër sama ëtt bu ma mës am rek maa nga fay maa nga fay woote guddi gàmm loo tax ñu jël daaray ngaabu gi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk mbooloo ànd liggéeyal Sëriñ Saaliw nga xam ne lépp luñ liggéey danañ dem ba ci ndonga yi ñu teral leen ci tatagal leen ci ziar leen ci waaye bégal leen ci loo tax ñu am taxawaay bu am solo boobu ci daara ji guddi gàmm tamit foofu lañ koy dundal jiyee ak yenn xeeti bis yu mel nii nga xam ne ba bisu sikru la wala bisu xasida yi wala lépp loo xam ne rek yoonu murit woote na ko mbooloo ànd liggéeyal Sëriñ Saaliw dana dem àndoo ko ak murit ba mu jeex tàkk jaajëf kontaan waaw waa sant bu baax eh, mboolem jëwriñ joo xam ne ñu ngi ci bi daara ji ndax mbooloo mi dafa am taxawaay bu mu amee taxawaay bi mooy programme moom macha allah ndax booy doog dugg ci daara ji danañ la dalal accueillir la eh, teg la ci yoon wu leer woo xam ne boo ñëwee di nga xam ne liggéey bii ñun làmbatuwuñ ko liggéey bu set la bu sell la boo ñëwee danañ la accueillir wan la ne kat liggéey bii ñuy liggéeyal Sëñ Saaliw da nga cee bokk ñoo ko bokk waaye ëpple wuñ la ci ba tax na boo ñëwee danañ la danañ la accueillir dalal la sunu daara yi nag daara ji nag dafa defaat ay daara ci biir li tax ñu defee ko noonu mooy Sëñ Saaliw boo demee ci ay daaraam dafa dafa def par ay néeg néeg bu nekk mu tobbi jëwrin teg fa jëwrin jooju mu boole ak trente personnes wala juróom wala wala ñeent fukki nit yoo xam ne yaa leen di toppatoo di toppatoo seenug set di toppatoo seen lépp bu fa xale bi jugee yaa koy lijjanti ñun nag noonu nii lañ joxee sunu daara ji def nañ ay daara am nañ un ba daaray quinze te daara bu ci nekk def na ay personnes kon loolu lépp ak bëgg la te liggéey bi bañ ko taxawalee léegi mi ngi toll ci at ak ak ñetti weer ñeenti weer loolu lépp ak cant la ci ñun ñi ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di sant waa équipe bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah